moom fi accueilliroon la et voilà voilà xam xam naa dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëwaat mais mais dafa am loo foo dugg sax ma bëggoon ñu ñu ñu wax ci tuuti mooy euh, da nga wax ne euh, lu bari dañ ñuy nax. li nga xam ne moom la majorité bi di wax ci wàllu emploi ci wàllu économie et tout et pourtant pourtant soo déggee les discours yi ñuy wax très souvent ci économie réew mi dañ naan la Macky sàll mi ngi tabax réew mi euh, soo génnee ñu ne la ma ngay defar pont fële def na TER fii def na BRT fële def na ay tali fële est-ce que dëgg dëgg dëgg noonu la ñu war a nattee euh, koomum réew mi pour xam ba xam président mi ngi koy liggéey wala déet. ah man na ci lu ma xam. Mhm. lu ma gëm. Mhm. bind ko te kenn weddiwu koom-koomu réew fii fu ñu toll nii ci Sénégal ñaata xëy. Mhm. la koom-koom bi di créer loolu laa xam. comme xëy d'abord xëy ñaata xëy. Mhm. parce que euh, euh, mooy Ali Kalaj bi. Mhm. Euh, donc Macky Sall. su demee souvent sax danaa danaa danaay danaay danaay leen di saboter di leen wax ordinateur sax soo ko programmé mën na la defal BRT. <laughs> soxla le président de la république c'est vrai mhm. parce que su joxee instruction directeur du budget joxee oui. instruction directeur euh, de la coopération ak directeur du trésor joxee mm -hmm. instruction directeur des transports terrestres ak peut-être euh, yeneen directeur yeeg yooyu waa yéen réunissez-vous mhm. defal leen ma BRT eh bien da nga maam mën nañ ko def noonu lay demee mhm. mais vision la hmm? ma ne mais vision la aussi ba euh, defar BRT wala TER soxlawul du loolu du vision loolu sax ay mën na sax ay nekk ay sentiment wala ay émotion ak yooyu ah du vision loolu du vision du loolu noonu vision de vision c'est sérieux c'est très difficile mhm. gis que nii transport bi lii moo ko war a mën a joyanti euh, ñu def fii TER def fii BRT désengorger yooyu du vision xam nga loolu xam nga transport dem ak dikk la mhm. euh, lu tax mu jóg dafa am ñu mu war a yóbbu ñu liggéey mhm. dafa war a am ñoo xam ne dañuy jox seeni soxla moyen la finalité bi mooy lan ñu liggéey am koom-koom am am am mhm. loolu laa leen doon wax mhm. Sénégal nag mënoo am chaque année ñoom ñoo ko wax du man maa ko wax mhm. deux cent mille au moins emploi am ñu ñuy wax ne trois cent mille jeune astafurlaay du emploi ñoom ñooy ñëw ne dañoo bëgg liggéey ñooy dugg ci marché bi emploi dugg ci marché du loolu su amee téeméer bu nekk fukk ñoo ci mën a am liggéey dix pour cent dix pour cent même soo force administration parce que dañuy forcé xëy yu ndaw yi yooyu forcé la dañuy leb pour jël xale yi dugal leen ay eaux et forêt ay ne dañuy surveiller ay boutiques yeeg yu ngeen xamul mhm. jaaykati boutiques yeeg yooyu wala ci yeneen ay ASP yeeg yooyu mhm. ñoo di leen jox cinquante soixante quatre-vingt mille francs par mois loolu moom nañuy wooye les emplois aidés aidés aidés mhm. ñu koy def parce que en réalité amuñu ñoom vision pour créer des emplois du Sénégal amuñu ko amuñu ko loolu mooy vision euh, xam nga vision euh, euh, lu tax ma ne lu jafe la en général dañuy wax sooy am vision ou bien da ngeen am ay conflit générationnel genre guerre lu lu metti lu dal seen kaw mm-hmm. su boobaa effectivement mu mën a am mu am lu ma wax ci général ay parc ak yooyu. lu ñuy mhm. dund guerre guerre du Corée ak yu mel wala les Rwandais et cetera. loolu vision mën na juddu ci loolu. Mhm. wala quelqu'un de très cultivé. voyager et cetera euh, le tsar en Russie ba moo doon awaa muy falu demoon na di liggéey dans les imprimeries en Autriche. Mm pour après mën a ñëw su faloo mu mën a moderniser réew. Mhm. wala nag vision partagée. daanaka ngeen lu kuréel tëkk tënk ngeen waxtaan hmm. loolu man lool laa gëm euh, ya euh, alxuraan hmm. wax na ko yenn sa salaam wax na ko philosophe allemand yi sax yu gars yi gëm parce que xam nga ñoom ay ay occidentalisé nañu hmm. lu allemand yi wax la ñuy gëm waaw ñoom sax wax nañ ko ñoom Habermas yooyu wane nañu euh, mooy lu wax ay démocratie délibérative ay da ngeen mën a toog waxtaan soo leen d'accord na yéen bëgg ngeen juboo te loo leen di wax takku na am na maanaa te kenn tënkul moromam normalement mën ngeen d'accord ci lenn loo xam ne jege na dëgg kon nag loolu mën naa am te liggéey nañ ci ci assises nationales yi mhm. soo demee ci charte de gouvernance démocratique des assises nationales ñu ngi ci biir signé naa ko ñoom Moussa Fane signé nañ ko et cetera et donc vision partagée boobu mën na am d'accord naa ne sax Macky Sall ne d'accord na ci parce que signé na charte bi mhm. moom ko doon signé waxul dara ci loolu loolu moo mën a am ñu bind ci biir ne Sénégal fu mu toll dañu war a jublu ci industrialisation planifiée mu ngi ci biir. Mhm. maanaam. maanaam Sénégal fu mu toll nii dañoo war a mën a jublu ci créer ay entreprises créer ay usines. Mhm. xale yi am xëy. wax ji loolu la direction boobu la koom-koomu Sénégal war a jëm. moom laay donc il faut ñu changer de de de paradigme de direction. suñ suñ bëggee dem. ah si sinon ca as son système à entonnoir bu lay wax noonu. 10 mhm. pour cent. 10 pour cent mënta continuer ça veut dire quoi. 10 pour cent de 300 000 Mamadou Lamine ñu bëgg a wax ne chaque année su 300 000 ñëwee sur le marché du travail 30 000 yi ñoo ci am liggéey 270 000 yi dañuy taxawaalu ji. dañuy taxawaalu ñii di taaba taaba dugg ci système informel bi. oui ñii ñii débrouillé dem diaspora léegi Guatemala nañuy jaar. ñii dugg ci géej gi ñii dugg ci géej gi ñii jaar désert loolu la fi am. xool leen autour de vous. Hmm. xool leen ñoo leen bokkal maam. côté yaay ak papa ngeen xool lu xew looloo fi nekk mënta continuer parce que xam nga lu tax mhm. deux cent mille yooyu qu'est-ce que tu fais quoi avec sur dix ans ça fait combien deux millions deux millions de Sénégalais c'est ingérable kenn mënu koo gérer moo tax il faut dès maintenant changer de direction alors euh, wax nga yaakaaroon nañ ko en 2012 oui parce que jàppoon nañ ni avec li ñu liggéey ci assises yeeg yooyu nañ jël direction boobu mais finalement Macky Sall daf ko sànni fële. Mhm. gars yi jàppale ko waa ñoom Serigne Mbaye Thiam ak yooyu. moom mhm. lu may wax ni xam na ko parce que bokkoon nañu doon rédiger documents yeeg yooyu ñu bàyyi ko. topp parce que dañoo bëgg nekk ministre sol euh, takk ay kawaar ju rafet c'est tout. Mhm. comme ñooñu Sénégal léegi yitteewu leen. askanu Sénégal bi amuñu yërmande ci askanu Sénégal. te mënoo def politique te amuloo yërmande ci askan. mënoo def politique te bëgg ñu mel ne man bu ñu dee gisee xool Sénégal ak ni muy doxee dañ naan président Macky Sall euh, bu fi jóge woon tey peut-être danañ mën a retenir ci moom ne qu'il a été bon président boo nee lu tax ñu ne oui parce que mi ngi tabax réew mi. Mm-hmm. nga wax ñu tey ne lii ñu tuddee par exemple les grands chantiers du chef de l'État euh, Issa wax na sànq ay TER BRT et cetera nga ne du vision te du luy régler économie mu réew mi. la preuve. man. Mhm. yoo wax preuve nga ñuy wut non. oui bien sûr preuve preuve mooy nee naa la yow xoola ñoo bokkal ak maam ñoo bokkal maam. oui yow. Mhm. côté ndey ak baay. Mhm. nga xool état employé wu ci kenn. voilà ñii ñu ngi diaspora. ñii xamuñoo ci lu ñu nekk loolu moo fi nekk man loolu laay dund. yow loolu ngay dund ñëpp loolu la ñuy dund. xanaa peut-être waa waa waa waa famille Faye Sall ak ñoo ñoo ko dund <laughs> parce que ñoom ñooy placé gaañ ci ci ci entreprise yeeg yooyu les quelques les quelques travaux yu fi am les quelques emplois yu fi am. mais c'est ça. le TER. TER sa milliards. Mhm. Mhm. Macky Sall xulóon nañ fi wax nañ. Mhm. man ma ne leen mais yéen soo leen di dépassé sax 1000 1000 milliards ci TER bi yaa xëy ci. xanaa kenn yenn chemin de fer yi yenn wagon yi yenn moteur yeeg yooyu ñu defar ko Sénégal xanaa mën ngeen ko négocier ak tubaab bi. waaw c'est le minimum. yenn boulon yeeg yooyu. yenn boulon yeeg <laughs> yi sew sewaan yi wala wala traverse yeeg yooyu xam nga traverse yi mooy genre bois ki yooyu la bien sûr wala cuir bi ñu ñëwee dégg naa tubaab yi nee nañu man suivre naa ko de très près parce que maa ngi doon waxtaan ak ingénieur yu nekk polytechnique yeeg yooyu mhm. ñu ne ma tubaab yi nee nañu mën ñu ko defar ma ne ko d'accord nañu ko jàngal oui su ñu ko jàngalee xale yi mën nañu koo defar. tey ku mën a réparer ab oto Mercedes euh, war a mën a. defar mais xam nga yooyu ak téléphone yu bees yi. waaw vraiment tey suba ñu rek ko. vraiment yooyu yëfu xam nañu ne yëfu tàppale Sénégal fii soo paanee ci benn village sax di nga gis benn xale ñoo réparer la dimbalal. loolu moo fi yàlla may na leen loolu. Mm-hmm. xarañ nañ talent bi mi ngi fi. dañ ko organiser wul parce que gars ñi gëmuñu seen réew. tubaab yi la ñu gëm. tubaab yi la ñu ragal tubaab yee leen tënk te loolu dafa war a dak te man nii maa ko fa war génne parce que aw ma complexe ci tubaab bi xam nga lu tax. Mhm. école politique de Paris laa jànge mhm. am naa loi scientifique. donc mhm. tubaab yi respecté nañ ma waaw. su ma toogoon ak Macron. su ma toogoon ak keneen dañ may respecté xam nañ ni kii. ñoom lu ñu jàng la jàng. Mhm. sérieusement continuer nag di ko def. yow mi jàngi ci euh, ah. euh, mhm. euh, ci France xam économie ni nu muy doxee sooy diglu ñun sénégalais man ak Issa ñuy ñuy waxtaan ci wàllu économie ak réew mi ni muy doxee est-ce que quelque part doo xoolum jàgg nga ne ñii ñoo ñàkk ambition je m'explique da ngay gis très souvent un sénégalais un bon sénégalais jël terre bi jóge jam ñaajo wàcc Colobane wala feneen daal taxaw daal ne yiw teer bi jar na ko. pourquoi parce que jëlee na ko fii yóbbu ko fii dans des conditions yoo xam ne moo dàq car rapide moo dàq Ndiaga Ndiaye est ce pour yow du du du du manque non non non xam nga non non du mhm. manque d' waaw mhm. euh, évidemment man su ma jëlee euh, il a Touba. oui <laughs> bon da ngay kontaan. oui ça vite. oui forcément. donc am na lu ñuy wax utilité. oui utilité. bi yokk na. Mhm. ku koy jël c' incontestable. mais xam nga koom-koom du loolu. koom-koom da lay wax mais yow. Mhm. utilité boobu ndax loo ci dépensé jar na ko. ndax loo ci dépensé mënoo ko duggoon feneen foo xam ne. Mhm. fa lay ëppee njëriñ. te di nga am même utilité bi. voilà mhm. loolu mooy question bi su nekkoon su du loon loolu kon c'est pas la peine ñu jàngale économie. kon économie du nekk science lu yomb lay doon c'est pas la peine nga ay d'économie ay professeur agrégé xale duy buurante di jàng. c'est parce que yombul. yombul yombul moo tax loolu am donc liggéey boobu ñoom ay yaafus lañu bëgguñu koo def. ban utilisation alternative des mille milliards la mu leb. Mhm. loolu question boobu Macky Sall du ko posé Amadou Ba du ko posé Moustapha Ba du ko posé les deux bassins ñoon newu ci. lu tax parce que parce que c'est plus facile. Mhm. c'est plus facile yëfu yaafuus la leb. wax a Alstom ne ko andil ma terre bi euh, ñu koy waxee encore tout fait la euh, mhm. prêt à porter. ah ñëw rek teg mu daw waaw waa Tëngéej évidemment ils vont être parce que di nga mën jël euh, en trente minutes jógee Tëngéej ñëw ñëw gaar bi gaar Colobane. Mhm. voilà ça leur suffit ñu yore médias yi yore réseaux sociaux yi ñu ngi liggéey andi nañ fi mosu fee am. Mhm. c' le doon wax Moutagassi le plus beau train de de l' Afrique. et alors yow de fabriqué wu defaloo ko. def. moom la doon wax ministre bu mu fa ñëwee assemblée nationale muy comparer terre ak l'arrivée du métro parisien ma ne ko mais daanu nga <laughs> métro parisien français ñoo ko defar mhm. technicien français ñoo ko defar mhm. ouvrier français ñoo ko defar ingénieur français ñoo ko defar mhm. kooku c'est l'honneur de la France français dañ cee kontaan ma sax kontaan naa ceeg ñoom ci loolu forcément waaw parce que quand même parce que seenu mbiru bopp la alors bopp la te wane na lu science ak technique mën a joxe lu tax yàlla dénk ko doomu aadama fii si suuf gis loolu loolu man dama ciy kontaan. mais en même temps damaa xam ne ñun mën nañ koo def. Mhm. ñun. Mhm. wax nañ koo mën a def. parce que effectivement laaj na al amin. Mhm. loolu depuis ma nekkee xale mu mooy turlupine lu ñuy wax mu ngi nekk sama xel moom nañu bind ci aventure ambiguë lu tax ñun tubaab yi gagné ñu ah oui gagné nañu Lat ma Maba Jaxu sama maam pourquoi mu ne ma sëñ Babacar wala sëñ El Hadj kenn ci ñoom la. Mhm. fàtte naa en tout cas mën nañu maa corriger. Mhm. parce que ñoom université populaire dëgg la ñu am. nee na nee nañu yàlla daf ñu booleeg tubaab yi. Mhm. pour ñu xam àddina. man ci sama gis-gis. daf ñu booleeg ñoom pour ñu dugg ci esprit scientifique. pour ñu dugg ci capacité scientifique et technologique. parce que xuusoon nañ ci. ñoom Cheikh Anta Diop loolu la ñu wane. ak ñoom mhm. Imhotep en Égypte ak yooyu mais à un moment donné xam nga luy daw la luy law la. Mhm. mun nga am benn dirigeant bu yaafus comme Macky Sall mu yàqal la lépp <laughs> day am day am ay genre nattu yàlla rek ñuy teg yu mel noonu su amee. Mhm. évidemment ñu tarxiis bàyyi loolu di toppatoo leneen tubaab bi nag ñoom ñu jublu ci. ak ñoom Galilée ak yooyu ak ñoom Copernic ak ñoom seen ñoom Newton développé andi seen i canon canon yooyu nañu gagné. ay sambassage yooyu. moo tax ñun ñu dugg ci système boobu dem jàngi science ak technologie dañ ko war a jëriñoo su ma di demee bar ñi gis Ablaye Ablaye Ablaye Ablaye Ablaye Samba mu inventé machine solaire à laver mais je suis content yóbbu naa fa ay nëbbooj na ko xoolal ma lii mhm. keroog gis naa Sonko sax mu dem seeti benn un sénégalais là mhm. euh, waxoon naa ak moom téléphone tout et tout à Ziguinchor mu inventé benn oto créé benn oto mhm. hmm? xam naa fi des jeunes sénégalais yo may discuter yu may encadré ay drone nañu defar Mm. yooyu loolu moom mooy sénégalais yi. Mm-hmm. xarañte boobu ñu ngi fi foog ñu libérer leen. Mm-hmm. foog talent boobu génn. alors dinañu léegi ci comment faire man su ma newoon la place de Macky mm-hmm. ak ñoom les de bancs là. danaa wax tubaab bi d' accord su nekkee le terre s'impose comme moyen collectif j'en sais rien ñoom loolu la ñu wax mais mën nañu am yenn façon train ah parce en France y' a le RER et cetera yaay dugg naa ci ba tey. bon ñoom ñoo ne façon train bi lañ bëgg ok. suñ ko à la sax suñ ko nangoo mais danaa ne tubaab bi léegi xam nga lu ma bëgg. Mhm. wagon yi ñu defaree ko Sénégal. wala moteur yi ñu defaree ko Sénégal comme ça suba. su ma mhm. waree defar terre mu war dem Touba wala ñu war a def terre bu war a dem Guinée bu war a dem Bamako. ñu mhm. xam ne Sénégalais yi seen usines yi dinañ ci liggéey xale yi dinañ am xëy. loolu mooy vision. très bien loolu mooy ambition. loolu mooy développement gaañ nag waa APR amuñu ko waa Benno Bokk. alors am lu lu lu intéressant loo wax te dama ko dama dégg keroog bi fi Bougane Gueye ñëwee dans cette émission là mu wax ne. Euh, su euh, mooy bi ngay wax léegi si les deux ba euh, le ministre de prémisse et le ministre de l'économie et des finances mu wax ne ni ñuy xalaatee économie suñu réew mi moom Bougane Gueye Dany mu ne soo indiwaatoon le ministre des finances bu Léopold Senghor Babacar Ba ou je ne sais qui il fair faire le même travail parce que li ñooñ doon def moom lañ doon def moom lañ nekk def ba léegi est-ce que da nga yaakaar ne yow mi liggéey ak le le premier ministre à l'époque Mamadou Lamine Loum notamment est-ce que da de ce point de vue là wul lu bari dafa fekk nu économie doon doxee ni ñu ko doon xalaatee au ministère des mu bàyyi ko muy continuer ba léegi. waaw bu ngay dam mhm. yi maa ngi lay yóbbanti ci moom ne ko mu bàyyi tekki moomu ko man maay borom tekki. <laughs>